muy Adji Sarr lan la lay inspiré. waaw ah, Adji Sarr de ma koy nuyu de passage sama jigéen jooju sama rakk jooju gis. non déggante nañu démb téléphone. mais pour teg bët moom xanaa appel vidéo WhatsApp wala yooyu. waaw parce que fi mu nekk ak fi mu nekk xaw na sori tuuti temps yi. donc loolu moo tax Adji Sarr lu may inspiré si moom mooy jigéen bu brave jigéen bu gëm boppam jigéen bu dëggu. bravoure am ci lan nga ko natt. bravoure am lu ma koy natt mooy gis nga lu mu dund. benn xale bu góor def ko naka sudul noonu. a ci dara non non mais dégg nga li mu la wax. Ousmane Sonko jusque là mais innocent. waxuma la waxu mais mais ba ba fu ñu toll am na dossier bu amoon muy procès barki démb dafa daw ku nekk présomption dina mais jour jugement nga ne faqat daw kenn gisu la kooku da ngay gën a tëlimal sa bopp mais Adji saar boo gisee ma ne la elle est brave parce que am na ñu mu doon doon tey ay jigéen ñu ne Ousmane Sonko moo ko def jëf yi du génn wax. parce que Ousmane Sonko a des milliers de personnes rawatina des personnes yoo xam ne saaga la nu mën xaste la nu mën euh, euh, xoqatal la nu man moom nag mu ànd ak courage am mu bañ a xool ay saaga katam ak ay waxkatu naka sudul noonam mu génn mu ne askan wi kii Ousmane Sonko loolu rek elle est brave. engagement bi nga amoon au tout début sur l'affaire Adji Sarr est-ce que le même engagement nga am am na lu ci yokk wala am na lu ci wàññeeku. tey laa gën a engagé wu pour jàppale Adji rabi Sarr au début maa ngi ko doon jàppale di ko xeexal xëy na si diggante bi réeroo woon nañu tuuti ba ma téye sama loxo ma ne dootuma ko taxaw mais si diggante bi woo na ma jéggalu ma waxtaan nanu ma baal ko ma continuer di ko jàppale parce que li ma koy jàppale mooy dëgg pour dëgg feeñ dëgg bii gaa yi di nëbb pour bu mu feeñ ay milliers de sénégalais ñu dëgg bi feeñ man dama bëgg a taxaw pour dëgg boobu aji saar ne am na ko dëgg la bëgg justice la am ñuy réclamer ne pour aji saar. d'accord nekkoon te si ba léegi.